salaam salaam les chers téléspectateurs de la 7TV télé bi ñu nuru ba nopp di ñu dajale mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu koy defee tous les mardis à de 13 h seen émission bi nga xam ne xew-xew la nga xam ne fépp foo xam ne am na xew-xew wala fait divers ay cas dañu fay dem ànd ko ak yéen si biir émission bi tey nag ñu ngi biir fan ok xew-xew bi fi am nag nekk xew-xew bu doy waar boo xamante ne ni nee nañu xale bu jigéen buy sëy si moom moo taal kër gi li ko waral nag bëri na moo waral tax tey émission xew-xew ñëw fi xool lan moo indi sabab loolu nga xamante ne ba tax xale bu jigéen biy sëy si si kër gi taal kër goroom mu nekk lu doy waar loolu lool lool sant yàlla nag ba kenn ñàkk ci bakket waaye am na ay dégâts matériels yu bëree bëree bëri comme tungu ne du teew ñuy nataal damay ànd sama caméraman Cheikh ñu daal di xuus dugg ci biir xool jéye ji fi am bu defee ñoom ñi fi dëkk expliquer ñu feey nan la demee waaye lu ci mënti am doy na waar kon nañu topp émission xew-xew fii ci 7TV. yaay booy ñu ngi maa ngi leen di fay. waaw ñu ñëw nag tey seen kër gi mu am fi xew-xew yow lan nga ci kër gi. man yàgg dëkk ci kër gi rek waaw 93 ba léegi maa waaw lan moo xew si kër gi. ah xanaa suñu goro rek doomu kii doomam bu góor waaw dañoo jote woon rek mu jékki-jékki rek mu roñ ay yéreem dem ba mu roñee ay yéreem dem ca la sotti taal ba muy taal tam dafa yaakaaroon ni kii mu ngi ci néeg bi te kii nekkul woon ci néeg bi boobu kii génn na ba daw dem police waaw mu taal bi mu taalee nag ci la ñu ngi nekk ñoo dekk ci kaw ñu gis saxaar si ci la ñu jóg ñëw ñu ne diw taal na kër gi ci la ñu nekk xale góor yi nag ñoo doon fay waaw ñoo doon fay lakk gi waa koñ bi kenn desut ñuy fay mais bu dul woon loolu kon dina gën a ñaaw mais ñoom waaw. yow nga dëkk fi 2093 ba léegi est-ce que lii mës na fi am. mosu fee xuloo xeex sax mosu fee am xanaa bi mu fi xale bi duggee bi fi xale bi duggee de ci la fi xeex am ci la fi xuloo am. waaye fii moom kër gi grand palaas la woon pour ñëpp ku ñew nekk ku ñew nekk loolu mooy kër gi waaw. lakk bi doon dafa garaaw daal. ah garaaw na boo leen duggee xam boo leen duggee ngeen dugg ci biir ngeen xool ngeen yéegaat ci kaw sama nekk ngeen xool. su nekk dafa laal bu baax sax bu baax sax parce que mënuma faa fanaan boo leen ñëwee ni ngeen gis loolu yëpp moo ko def de waaw. ah xale bi de gisuñu ko xëy na mi ngi ci ndeyam. waaw xëy na mi ngi si ndeyam. d'accord dégg ngeen Cheikh kii nga xam ne témoin la nañu dugg ci biir kër gi xool li nga xam moom la ñuy wax ne eh, bu ñu duggee dañu xam ndax moom lakk bi sax jàpp na néegam ñu dem. voilà ñu ngi nii nag ci biir kër gi fekk fi ki nga xam ne moom mooy borom këru maire bi nga xam ne moom la goroom def li eh, jëf ju doywaar ji papa ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. ñu ñëw sa kër gannaaw xew-xew bi fi am mu nekk xew-xew bu doy waar boo ñu doon wax ñi setaan 7TV lan la. waaw moom ni mu demee rek comme niñ ko waxee woon bii passé moom sëy na fi mais digganteem ak jëkkëram daal na nañ ci trop def nañ ci lu nekk nag pour ñu ànd neexal nañ ko jëkkër ji aussi il a fait de son il a de son mieux lépp lu mu xamoon rek def na ko lépp lu mu mënoon aussi def na ko. son problème c'est sa belle-mère bon sa belle-mère nag elle est chez mu ngi nekk këram moom nag kër gi moom moo ko moom yaay ji si boppam moo moom mais la fi moom elle pouvait pas accepter sa maman la maman te ñëw sëy si si biir kër gi te ñëw sëy si si biir kër accepter sa sa jabaru sa sa yaay jëkkër ce sera un cas très difficile man moom c'était pas grave bàyyi woon naa ko bu yàgg ça fait plus de dix mois dañuy rombante à gauche à droite du ma ko sant dara waaw même les jours bi muy def dégâts yi am na ku ma wax mu attaayal ma dafa ñëw football attaay bi xale bi ñëw wax ma ko ma ne ko amul problème yooyu yëpp garaawul bàyyi ko rek. yow nga attaayaloo nit sa goro bu jigéen ñëw fël attaay. ñëw daf koy daf ko këpp daf ko këpp xam na xaw na lakk waa ji sax ma ne ko yooyu yëpp garaawul bàyyi lépp bàyyi lépp mu dem après nag mu génn commencé saaga tamit mag laa du ma fi nekk di. kii ak moom ma sol sama la dem sama kër yaay toog foofu. 30 minutes aussi euh, trente minutes après on m'a appelé ne ma yaa ngi toog fii mais dafa lakk kër ga. mais j'ai pensé à ma femme may leen est-ce que ma nga foon ñu ne ma nekku fa ma ne kon alhamdulilah rabil alamin comme nekku fa ça va li ci des dégâts matériel rek la dégâts matériel moom matériel nit a koy defar mais matériel du defar nit waaw léegi nag on a vu ce qu'elle a fait léegi ñun xuloowuñu xeexuñu justice bu defee liggéeyam ça va bu deful liggéeyam ça mais moi sama problème yëpp mooy euh, mu dem mu bàyyi sama jabar yaay jëkkër ji mu nekk en paix man c'est ça problème xulóo mu xeexu ma. moom ñaata at mu ngi si kër gi xale bi jigéen bon xam naa ne buy am ñetti at wala ñetti at est-ce que am na fi sax ñeenti at. waaw mu ngi noonu man kiiwuma ko man daal li ma bëgg man je suis un régulateur fu nekk lay dem. gis nga sama téere alxuraan yëpp daf ko lakk. moom moom moo ko lakk parce que xam na fi mu nekkoon. xam na yëpp fi mu nekkoon yii yii gis nga di gën a grave sax sama téere yi ma doon jàngee sama téere xam-xam yeeg yëpp jàng lépp lakk na ko bon yàlla baax na nag parce que dégâts corporels moo gën a graaw te yàlla dimbali nañ fi ba amu ci li ci des nag loxoo ko defaroon na ko loxo defaraat rek mu jeex. fekk sax ñu ko doon defaraat bu mu beesaat. non non amagul deux gisoo peinture bi yëpp bees tout yëpp bu bees la même moom chambre am defar nañ ko ba pare sald de bain dem rek laay wax jëkkër ji naan ko gaawal nga préparé nga def pose kii bi chaise anglaise bi bon bëgg jàmm daal jàmm rek lañ doon wut nag li may wax fii noonu laa waxee woon fële aussi mais il ñun man li tax may wax mooy boo waxulee ay nit yu nekk si biti dinañ wax mu dem tele wala mu dem feneen te lañuy wax duñ ci xam dara waaw te boroom xam-xam yi dañ wax ne ki xam na wax ki xamul na noppi parce que ki xamul bu noppi ki xamul bu noppi di wax day yàq waaw kooku loolu nag yàlla nañ si yàlla musal yéen nag dama leen di gërëm leen sant parce que yu mel nii c'est bien beau pour ngeen koy wone pour xale yi xam ne bu ñu demee seen kër goro yi dañ fa war a toog correctement sëy correctement waaw sëy soumission la da koy préparer boo ko préparer ba xam ne attan nga ko mën nga ko nga door si dugg dans le cas contraire nga dem foyi boo foyee ba doyal nag yow yaa xam bu fekkee da ngay sëy nga sëy boo sëyul nga bàyyi mais sëy du fo fa sëy sacrifice la la nit ñi war a xam di ko jàngale si tale yi mais sëy du alxayri rek déedéet déedéet euh, man li ma maye si jabar xaw ma nu mu day mais dama lay may jabar bu noppi di la topp di la seeti di seeti ki ma la may wala ma seeti ki nga xam ne Euh, moom laa ñaana la pour toujours muy am harmonie si digganteem ak jabaram ñun loolu moo ñu intéressé waaw te nag dafa nekk ay sujets yoo xam ne euh, du ay dafa nekk ay sujets yu ñuy war a génne di ko waxtaanee si si journaux yi ak si télé yi jàngal xale yi nan la ñu war a comporté woo bu ñu demee seen kër jëkkër yi mais dégâts yi amul sens lii du dara matériel rek la barke de moo njaay boo xoolee ay Maroc ay mais catastrophe yi am foofu kenn xamul nu mu daj kër gu ne lu mu la kër gi moom mi ngi ne nii teg mais demal Kenya bari ko démb rek tey France 24 ci suba bu ma ko da ngay waaru ci yàlla. mu nekk ay jéyam emporté ay nit 87 personnes dee ci fii ñun dañuy sant yàlla. muus bu dëkk sax deewu fi kon nag alhamdulilah. mais moom dafa nekk histoire bi c'est la première femme def ko wala dafa mës a jàppante ak jëkkër. non si la dëkk. si la dëkk man man daal jëkkër yi leen laa ko doon wax sa loxo bu mu ko laal. sama wax ak yëpp moom ak jëkkër ji loolu la sama sa loxo bu mu ko laal waaw sama wax ak sama doom loolu la. dafa bari dafa bari boo ne nee gi saf na suukar sax mu mu mu mu mu indi histoire. moom mu song la xeex léegi nag ma ko daan wax toujours sa loxo bu mu ko laal moytul nag mu gaañ la mais yow tamit. bu ko laal. waaw ah, non non kii capable de tout. d'accord gannaaw bi xew-xew bi amee fii sa kër euh, ki nga xam ne maire kayre sa yaay la woon nan ngeen yëgee xew-xew bi. metti trop trop trop nday metti na trop trop trop kayre Kairé mérité wul lii ci àddina mérité wul lii gis nga moom juruñu mais daf ñu uufoon comme doom ju mu jur. wallahi azim ñu lekk moo ko gën a ay doomam lekk ba guddi dañ fiy fekk suñu lekk. man dëkk naa ak May Kayre dëkkin boo xamante ni musuma si gis lu ma ñaan yàlla rek yàlla na ma yàlla may ah lu ma ko yóbboo màkk loolu laay ñaan yàlla parce que mère bu baax ni ni ku amul benn problème te ku sëy ba dee moo nekk nii gis nga ni mu waxee nii noonu la mel amul dara benn problème àddina am ko kii goro bi ma ko yenee woon nekkul genre bii dama ko yéene goro boo xam da koy jël ci kaw di ko uuf di ko tang-tangal chaque jour mu koy muy la yaay loo bëgg yaay lii yaay laa lool laa ko yéene woon ndax mère Kairé amul difficulté kon lan nga mën a dëkkee ak moom bay bay am ak moom problème moom du nitu problème nitu problème bi jot nga ko xam waaw dëkk parce que bi muy sëy si man ci sama kanam la sëy si kon jot naa ko xam bu dee wàllu wàllu wàllu xam rek li ma ci xam ba génn ci kër gi moom moom ma ko def moo def lu tax ma génn ci kër gi parce que bunu daf ma daan bunu xataal daf may sosal di ma waxal loo xam defuma ko léeg-léeg ma woo jëkkër jox ko jëkkër ji ni ma noonu la mel moom su la bëggee jot foog mu foog mu attaqué la waaw waxala loo xamante def ko non man dama doon sonn ci moom mu jóge nag ma xam ne lii amatul kii daal affaire bi daal dafa meloon nii man daal te rus naa mer kay rus fii ndax ñun du juddoo nañ fànn ak ba màgg fànn ak kenn mësuñu xam ci kaay yaama ne donc du moom mooy ñëw di di di génne suñu sac ci mbedd bi lépp dañ doon gëmm mu jàll parce que mère bi ci kër gi xamul histoire xamul wax loo wax mu ne baax na bàyyi naa ak yàlla loo wax mu ne bàyyi na ak yàlla ku mel noon nag munoo ko mënoo ko def dara mënoo ñëw ci këram tamit di indi di somele bordel waaw comme doomam bi mu jur moo mënul taxaw dindi loolu yow lan nga si mën da ngay taxaw seetaan loolu la. yow noo yëgee lakk-lakk. man lakk-lakk bi dama man xam nga damay jaay ataaya damay jékki-jékki rek gis auto police taxaw ma naan lii kër gi la wala du kër gi ma jékki-jékki avancé tuuti gisaat nit ñi taxaw ma ne xaaral ma daw dama daw rek ñëw rek fekk ñu ne kër gay lakk rek ma ak mer bi xëcc ko. daal di koy taf sama sama ni ko ay kayri mérité woo lii ci àddina kan moo la def lii mu ne man diwataal kër gi dama génnoon wooyi police yi may ñëw fekk kër gi tàkk ma jooy ànd ak moom ñëpp di jooy di ma jooy de parce que mérité lii ci àddina maire bi waruñ ko fay ay taal kër wallahi azim waruñ ko fay waruñ ndaxte kii dafa sonn dafa sonn ci sëy léegi xale bi moom bi mu euh, bi nga dëkkeek moom yow mu fekk la ci kër gi fexe ba génn la fi euh, lan moo nekkoon but bi dafa bëgg woon yéen ngeen nekk gorom wala. moom daal xam naa ne moom man day waxut ma dégg mais ñi mu doon waxal daan nañ wax ni xale bi nee na bu ñëwee ñi ci kër gi ñëpp lay génne yéen ñi ci kër gi ñëpp lay génne te nam ko waxee woon daa mel ni noonu la amee parce que dañ doon génn par benn benn man génn naa Cheikh lu mu génn te mère bi moo ñu yoroon ñun ñëpp génn nañ mu des ak mère bi nag ak ay doomam ci kër gi mais mayul mère bi jàmm. daanaka daal ñun bu ñu déggul histoire chaque deux jours nañ ko dégg daanaka weer bi wala deux mois wala trois mois yu ne ñu dégg histoire saa yoo ko déggee mu indi jàmm du yàgg tuuti nga dégg histoire waaw. métti na trop trop ba kanamu yàlla métti boo xamante ni dafa yegg ci xol au fond du cœur wallahi azim. tamit euh, si kër gi nga dëkkoon noo yëgee xew-xew bi daal seen kaw. ah man de xew-xew bi yëpp fi la ma fekk yàgg na ma fay fekk sax parce que moom loolu la dëkk à chaque fois. day histoire rek moom jëkkër ji moom du nitu fitna parce que moom jëkkër ji amul benn problème mais jabar ji moom daa nitu na la chaque jour day def ay bitis jëkkër ji day def lu ko neex tout le temps mais moom kenn du mënoo daw daal ba neexam moom problème guddi problème bëccëg dem na ba mu jigi kenn du ko àtte ndax man 31 bi passé xeex nag jëkkër ji xeex bu métti ma àtte dafa xot sama yére si digg bi gaañ ma si saaga ma si ndey loolu dëkkee ak nit ñi sa mujj gi nag gars yi ñëpp dañ koy moytu. xanaa am doole. waaw dafa am doole parce que moom bii xeex lu mu jekku dala koy dóor veer ak kaas ak palaat ak lépp am na benn jour boo xam ne mi xeex a jëkkër maa ko àtt mais su ma ko àttatu day gaañ jëkkëram parce que veer la jël palaatu veer dóor ko ko ma défendre veer bi mu jigi mu sippi ma ko xeex man xott sama yére depuis loolu nag ñëpp koñ bi yëpp na ma bul ko àttee ba ko parce que kii boo ko àttee ba subaa mooy loolu daal da la yóbbu police wala mu indi la problème kii nii la mel naturel ñu nekk ci kër gi nag. ñun à chaque fois biy def bétisam dañ koy moytu parce que kenn du kenn du ko jege lu mu def rek ñu ne waaw di ko moytu jour boobu mi am na problème man fi la fekk ñoo xëy yendu bi xëyw na ma gisuma la ma ne ko man de démb dama sonn moo wàccu ma ma xëy ñu toog fii nag après moom bu la bëggee jot day moom bu bëggee jot nit ñi day créer ay fobeere wala muy def kenn xamul daal mu jël fi ndox tooyal ko ba mu tooy xepp maire baa ngi toog fii man maa ngi toog fii di ataaya mu génn tooyal fii maire bi ma aw fi bëgg a daanu ma ñëw ne maire feere boo fa awee danga nga daanu parce que dafa tax kenn xamul luñ ko fompee boo yeboo boo paree nga bàyyi fi jus yi man naa ko dugal si frigo bi après man ma euh, yow nga jaare noonu dem Grand yoof moo gën parce que kii daa gis naa tey dafa say mu ne pat maire bi ne ma waa baax na mu jël tarambus benn tarambus kii benn euh, nickel duy si ndox di ko baxal rek ba ndox bi bëgg a jeex mu ñëwaat rempli waat loolu yëpp pour maire bi la woon ndox naa teg ndox di baxal di baxal di baxal fekk ma si cuisinière maa ngi togg ataay mu pël sama kii bi man ma ne patt rek fàdd ma lu ne ma def ma na patt man ma toog rek mais bu ma xoolee ma xool ko ñu ne patt rek continue suñu waxtaan mu jóge nag mu fii si gannaawam di fóot dee na fii la mère bi toog fëte yaa ngi fi mu ñëw si gannaawam di fóot kanaa loolu mooy tooñ di jël ndox bi di ko ko sànni mère bi demee xool ma ma xool ko ñu ne patt noppi loolu yëpp mu ngi ñu ur rek mu ngi am mu jóge mu kéré fii ay ndox fóot si yoon bi fee benn ki si kaw aw fa rama ak benn naar man ma génn mu mujj gi mu génn dem di oo jëkkër ji xaw ma lu mu ko wax jëkkër ji ñëw na ma lan la ma ne ko dara mu ne neexu ba neexu mais kii dafa réew mu ne ko yow waa jëkkër ji ne kii yow da nga réew yow fii am problème fi nga mu ne ko yow lu ñu la wax nga gëm ko man li ma wax mooy ay fen di saaga ndey di saaga lu ne mu def jëkkër ji jëkkër ji tamit génn mu ne ko boo fi génnee man daf la nangam jëkkër ne ko da nga réew yaayam oo ko ne ko kaay toog à chaque fois bay xeex yaam du nangu mu laal ko même bu koy gaañ sax jëkkër ji da koy bàyyi mu dóor ko parfois ba gaañ ko may jëkkër ji du fayu parce que tout le temps yaam da ko ne bu ko laal bu ñuy xeex mère bi day génn kii ko parfois fee lañ koy tëj ci waañ bu ñuy xeex mère bi dañ koy tëj muy sànni ay bagages ci waañ bi du ko saaga ndey saaga yi moom moom la dëkkee nag mère bi chaque jour da koy saaga ñun ñëpp dañ koy moytu après nag si la jëlee dugg génn ba mu génnee ñëw. ñu toog mu dem ooy jëkk jëkk wax loolu mu ñëw toog jëkk ji toog dend ak yaay ji mu continuer di ko saaga rek di ko saaga rek mu jóge na mu attaqué yaayam di ko saaga naan ko dul kat bu mag bi fen bi mag bi après nag jëkk ji ko bul saaga sama yaay yaayam na ko bu ko laal parce que kii jigéen la a chaque fois de bëgg nga dóor ko wala nga gaañ ko mu ni la problème te jigéen duñ ko dóor bàyyi ko ba xeex bi tëwee arrêté nag ma woo sama ñuy xeex ñu songoo ñoom ñaar xeex ma woo sama benn rakk na ko nañ oo kooku kooku nag moo ñu sa mën a dimbale ñu oo Cheikh Cheikh na oo naa xam ban police point e léegi naa leen booleeg moom bañ fa demee ñu oo police point e ñu ne nañ dem ñu dem jël oto ñu dem fa bañ demee xam nga rek police ñu yegg ñu naa ñu affaire ménage la yooyu ñu toog expliqué affaire bi mu ne waa léegi da ngeen toog ñu ay quelques agents ñëw ñu boole leen moom ngeen dem mais bi na ko man damaa bëgg ku ma dimbale ndax ñoom xeex lañ dëkkee te nañoo gaañe su léegi ñuy xeex te ñoom buy xeex kenn du ko àtte ndaw si moom yow na ko yàlla bindee te damay bañ sama doom gaañ ko ngeen dimbala ma si àtte ko ñu toog foofu quelque temps mën na presque une heure temps ak lu teg ñu jugee foofu ba ñu ñëwee ñun lañ fekk kër gi tàkk ba mel doom ñun loolu mooy suñu information loolu lañ si jot a xam. waaw man ba ma ñëwee dugg si kër gi sax dama doon parce que bawu ma fi loolu waaw. dañ doon dem pour uti ku ñu dimbale ndax moom daf nit ne dafa am doole ba waxee mu ne te ñuy dem daf na ma carrément dem leen police su ngeen demee police yéen a tëdd loolu laa bëgg dem leen police. yow dañu ñëw sa kër gannaaw xew-xew bi fi am bu doy waar ba ñu doon expliquer lan la. man kay lii daf ma jaaxal sax xaw ma lan la sama goro daal moo tàng tàng boppam tàng na lool kenn mënu koo supporter moom nga xool ko sax seen bët tase mu saaga la waaw seen bët tase rek mu saaga la xale bi man mënuma gis xale bu mel nii wax dëgg yàlla maa jur ku góor ki de mais man xam naa ne sama doom xaw ma lan la toppee xale bi xale bi bu ko ne jaaral fii sax mu jaar foofu affaire bu doy waar. boo xam ne samay mbokk ak may woo di wax xale bi nag dafa xamul ni mu def waaye kii dinaa ko bàyyeek yàlla dinaa ko topp nag ba mu sës du ma ko mus a baal du ma ko mus a jéggal. moom lan la def exact parce que ñëw kër gi tàkk ñi naa moom moo ko taal coow li. moo ko taal parce que histoire na nekk di xeex ak jëkkëram man man génn naa moom xamul ne génn naa parce que man histoire koo woo ci mbedd mi nag kaay àtteem mu ne man du ma àtte parce que xale bu jigéen bi moo réew. Ah, day faral di histoire jëkkëram bu génne ci mbedd bu ko xale bu jigéen xoolee sax. bu xaqataay rek bu duggaatee ci biir kër gi dangay gis muy mbéj jëkkëram di ko saaga moom xale bi noonu la bindoo waaw. xale bi léegi jëkkër ji bu ko ndaw si mbéjee wala mu saaga ko du wax dara. buy wax maa ko naan bul laal gis nga kii daf dafa bëgg nga rey ko te kon ci kaso bi ngay dee li may wax yàlla rek moo tax ma wax ko. moom ñaata at la fi def. war na fi def ñetti at waaw. donc si biir ñetti ati dafay xuloog jëkkër ji wala c'est la première. du première fois de ci la dëkk moom daal bu waxtaanee reetaan xaqataay. jékki-jékki rek mel ni dañ ko def dara jëkkër ji ay xaritam tàggale ne ne bëggul ñu dugg ci kër gi ay freeram am doomu baay mi bëggul ñu dugg ci kër gi soo tegee lekk sax di woo nit ñi mu mer te moom toggul yàqul man maay togg may yàq may def fere sama yëpp te su ma toggee fii lay sànni bool yi waaw. léegi moom jour bi nga xam ne def na jëye ji bi mu xëyee nan nga ko gisee ak nan la def ba yëfi am. bi mu xëyee suba. ma toog fii di defar sama jus sama garab yi ma jëndi ko pharmacie mi ngi nii ma ko teg ko fii ki ba pare mu dugg ci biir taal kii bi gaz bi teg ndox di ko baxal ndox mi di bax di bax bay gën a ñeer léeg-léeg kii attaaya man ko waa yow affaire bi jaaxul la mu ma ndox maa ngi bax rek bàyyi man ko bu ko laal moom xam na ndaw si mu bàyyi. sa gaz la taal bàyyi ndox mi bax doo ko wax ne ko sa ndox maa ngi bax. Ah, ndox maa ngi bax. kii man duma ko wax dara dafa sadik te man diabétique laa. ñemewu ma ko wax. mais kon sa gorob yóbbu na sa waaw parce que bëgguma mu gaañ ma ñu naan lii jaru ko fi woon ak nii nii wala ñu may seeti hôpital samay doom di ñàkk. parce que dafa bon lii may wax ci télé laa ko wax xale bu bon a ngi nii te lii ma wax nii duma ci dellu ginnaaw te naa am ñu ma ci jàppale. ndox mi bu baax après. mu bax a bax a ba xaw a ñeer te ñu ngi toog xamul nu muy def. man ma Momar kii ataaya mu daal koy jël rek sànni fële ci biir douche bi daal di commencé nag jël ndox jël eau de javel jël omo sotti ko ci kër gi yëpp parce que paan sotti fii yëpp fii ay locataire a fi nekk. bu bu nit ñi toogee yooyu lay def am locataire bu génn jàll kii ataaya yóbbul paa bi ataaya duggaat rek Cheikh Oumar sama doom bi daal di dugg daan ne waaw eh, yaay lan la Momar lan la ñu ne ko ci lan. parce que xamuñu ndekete moom xam naa génn na jëkkër ji ñi romb nañu jëkkër ñu ne kon baax na sabaa rek ñëw toog sama ba mu commencé saaga yi da def ni sa ndey di di saaga saaga yoo xam ne man xaw ma lan la. maa ngi toog ta taxaloog moom. ndax sa ndey bu ma xaw ma lan lan mu ne ko bul saaga sama nee naa rek euh, songu ko ma ne ko nee naa la bu ko songu bu ko laal kii jigéen la tout le temps nee naa la bu ko laal man lu ñaaw laa bañ. bugguma lu ñaaw bugguma lu bon parce que xaw ma ko waaw man xaw ma lu ñaaw xaw ma lu bon du ma wax nit lu bon du wax nit lu ñaaw. jàmm laa xam bi ma juddoo ci kër gi ba léegi. léegi yow après bi mu jékki-jékki taal kër gi yow fi la la fekk wala. déedéet dama demoon police pour ut intervention pour ñu dimbale ma àtte leen parce que nit ñi bañ nañ leen àtte. ah ñoom dañu doon xeex jour ba moom. Ah, ki fi dugg ki ma wax ne duggal boo xool kooku àtte na leen ba sama doom bi dem mu des ci kër gi Adama borom restaurant bi. nee na gis na ko muy gàddu bagaasam yi du yóbbu seen kër. gàddu yëreem yéeg bagaasam yëpp dellu si bi mu dellu see taal xam naa day yaakaar ne maa ngi ci biir parce que ma am habitude bu ñu xulóor ma dugg tëj bunt bi ndax bañ mu gaañ ma yi muy sànni day sànni fu ko neex lu mu yor da koy bu déli verre yi ci biir kër gi ci biir kër gi loolu la def mu daal di taal daal di tëj bunt bi ak caabi looy taalee di tëj bunt ak caabi ñun fii duñ ko tëj ak caabi mu tëj ko caabi ci biti te fekk taal na ci biir daal te bi muy taal nag kaamil yeeg bagage yëpp da ko rassemblé yulli sama armoire parce que armoire mënul nekk fële ci biir yére di nekk fii. ah dafa déggu sa néeg yulli sa armoire. armoire dafa sës fii armoire plaqué yu ndaw mais yére yaa ngi nii tegu yére yaa ngi nii suulu fi kaa boo kaay filmé kaay. waaw. yére yaa ngi nii donc daf ko yebbi dajale yëpp dajale yëpp daal di kay taal dem yoonam. loolu ay yan heure la. am ay 17 heures man ma jógee police ànd ak policiers yi ñëw. bi ma ànd ak policiers yi ñëw gis xale fan yëpp baa beeku di sotti ndox fu ne aw nañ fa nag ci kaw meuble beeg yëpp fu nit am ndox rek sotti na ko dàq bi gën a ki ñu woo sapeur sapeur balaa moo ñëw xale yi sonn nañ mais sapeur moo ñëw fay fay lakk gi. donc moom si suba gi la commencé histoire jëkk ji yow nga dem police boole ji. histoire bi yàggul yi mu fees seen ndox kii kii dama xam ne ñoom suñu saa ñuy xëyee kenn du leen nangoo ate ndax xale bu jigéen bi moo réew réewu boppam. xamul ne dem naa police yooyu sax daaw aw ma habitude di def loolu sax man a xaar ma woo policier yi boog tax ju dimbale ma man bëgguma ay policier yi ne ma toogal dañu am intervention biir point E léegi soo toogee su oto bi ñëwee rek nga ànd ak moom bi ñu ñëwee fekk naa daw na dem seen kër policier yi ne ma wan marka ma yóbbu ko si seen kër immeuble mu naan bi muy wàcc ñëpp ak may dégg mu ne maa ko taal parce yaa rey sama doom xale yi reetaan ko ne ko laa yow foo musee ëmb ba am doom mu ne bu ma dellu see di ngeen xam ma ne policier bi yow dégg nga li kii di wax mais policier bi répondre wul. menace la menace publiquement. waaw répondre wul ne rek ne ma wol ma sa doom bu góor man tam ma gis fii sama doom bu góor Cheikh Oumar muy jooy ay yaay man ko demal góor nga demal wuyu policier yi parce que lii yëpp yow la man ba ma de yàgg naa ko ko tere parce que xale bi bañ ko takkee ku ne woo na ma ne waa yow ki sa doom takk taxoo nga ko est-ce que laajte nga ko est-ce que kii ma ne ko moom moo wax nañ ba sonn man mii ndeyam wax naa ba sonn mu ne moom rek wax naa ba sonn mënuma ci dara ndax xale bii bu ngeen demee ba ca cëppaandaw ko di ngeen xam xale bu jigéen bi kan la di ngeen xalaat ndax kii war nañ ko mun a takk mu dugg fii ci biir kër gi. léegi ñoom ñaar dañu amoon doom. musuñu am doom. moom doom la naa moom mooy def rek bu toogee retard daan na jëkkër ji damaa ëmb su indisposé daan ne ko damaa avorté avortement boo xam ne yow tey nga koy def bu ngoonee nga sangu sol tubéy gu danga ànd ak moom génn moo tax wax naa ko sama doom man ko yow toujours dangay wax loolu ma naan la kii musut a ëmb ngay weddi ëmb nekku fi waaw ëmb amu fi. léegi moom lan moo ko xiir si mu taal kër gi nii ba nga xam ne génnewu leen dara dara dara. ah xam naa xalaatul woon na nag dina yegg fii du dafa réew rek xalaatu ko woon parce que bi muy def yi di tëj bunt bi xalaatul woon ne dina bu ma taalee peut-être que dina lii yëpp dina lakk dama ko xalaat rek man sama xalaatu bopp. léegi lu tax mu tëj sa bunt néeg dafa foog ne yaa ngi si biir dafa bëggoon lakk bi jàpp la wala lu tax mu def man maay man maay tëj sama buntu dugg si biir man bu ñuy histoire ndaxte moom day da toj fii ay ver sànni ay lu ne mën na la gaañ waaw looloo tax. léegi lakk fii foog yaa ngi si biir. waaw mu tëj bunt bi moo ko tëj. dafa waaw mu tëj ko dem moom daal mënu ma supporter mënu ma supporter fu ñu wax nag ca mbedd ma. sama jëkkër moom moom kër gi sama kii man ko yow sa jëkkër ban kër la moom xale bu ndaw fan la juddu bay parce que jëkkër ji toujours daf koy ne sama maam man la may kër gi waxu sa jëkkër xale la yow xale nga bu la ko waxee yow war ngaa xalaat loolu war ngaa xalaat ne sa jëkkër moom moom 97 fii ci Fann ok wallaahi amoon 2000 xanaa yow euh, xale bu góor boobu da nga am si doom waaw ak ku jigéen ki parce que dafa ne woon bu duggee ci kër gi dina génne ñëpp la mu wax dëgg la am na ñu fi ñu ma fi yoroon ñëpp génn nañu ñépp génn nañ ba sama doom bu góor bi nga xam ne xam nga ko mu ñëw fii waaw sama doom bu góor bi. léegi léegi moom. dama ko mujj rawale Grand Yoff. xale la. kon yéen ñaar ngeen des ci kër gi moom mu lay mbugal daal. mu may mbugal wóor na yàlla. di frappé porte yi su guddee day ubbi robinet bi di sotti ndox paas naa sànni plate yi bool yi. mais moom est-ce amul ay rab. xaw ma lu mu am da réewa ngi ci. réewa ngi ci daal ngi ci. ndax boo nee lébu laa am naa rab ñëpp am maamu lébu taxaw fii waaw. mais daal li ma gisee kër gi nii mu nekk na incendie bi doy na waar parce que boo gisee fii ñu mel ni peinture bu bees waaye dafa mel tam dara génnul si kër gi. dara dara génnul si kër gi ah lakk xanaa gaz yi nii doon sauvé waaw. cuisinière bi dafa taal bi ñeenti fa yëpp. moom dafa bon bonu boppam man kii jarul sax bi laay télé di ko kii bu ngeen ko. léegi léegi léegi léegi yow lan ngay xaar si si yoon. dama yóbbu affaire bi ci yoon du ma mus a dellu ginnaaw laa ba fu mu yem rek day neex duma dellu ginnaaw du ma baale dañ dem ba. léegi dans tout ça la si jëkkër ji wax ki nga xam ne mooy sa doom Cheikh. xanaa di jooy na ma yaay mënatuma la gis boobu ba léegi gisuma ko. dañuy déggante mi ci koñ bi yaay mënatuma la gis parce que rus naa parce que yàgg nga ma wax man dégguma li ngay wax mais xam naa li nga doon wax yëpp a ngi nii waaw. pour yow daal jëkkër daf ko ragal moo waral tax mu nekk moom moom ba léegi wala. ah man da xaw ma nu mu demee nii wax dëgg yàlla yàlla xam na ne xaw ma nu mu demee nii lii daal bu dee ak nu mu munti demee jaaxal na ma. xale yi si kër teg fitna. fi mu nekk daal li may lancé mooy. ku ci am goro sax mu war laa mën a wan bët boo xam ne bëggu la na génn sa biti bu ko sax jéem a bay bayal kii nag dama ko bay bayal lool parce que toujours rek xam nga rek jaboot. toujours dama naan jigéen bu sañoon doom bi muy jur moo fii gën man du ma yàq deru kenn loolu lay wax tout le temps waaw waaye daal moom daal du ku baax ku bon tamit sa kër goro ñu génne la sànni la si biti man daal bëggatuma daal koo xam ne bu dee sama sago sax man sama doom bi est-ce que dina xalaatati sax jigéen loolu maa ngi koy xalaat ndax kii lu bon li mu def non kii suur naa ko xale bu jigéen bii bàyyi naa ko yàlla nag. dugg bàyyi naa ko yàlla te kaamil yi mu lakk yàlla na ko alxuraan topp darajay Muhammad wallaahi ci darajay Muhammad kii dina gis ren ba déwén te dara dool ko ngeen defe ne de. wallaahi billaahi nee na tuuti man bu may wax sax ma xam lu may wax parce que tellement que man affaire bi dafa ma métti kii maa ko yoroon dëkk moom la njëkk a génn ci kër gi wóor na yàlla mi ngi nii. ah man de man daal doy na waar kii daal moom bàyyi naa ko yàlla ak alxuraan gi mu lakk. kaamil yi. ñëw tey seen koñ bi gannaaw xew-xew bi fi am yow itam nga nekk dëkkandoo noo yëgee xew-xew. xew bi fii la ñu fekk fii la ñu fekk ba ñuy xeex maire bi génn ne ma ñu ngi xeex moom xale bu jigéen bi génneen a tax paaka bëgg a jam jëkkër ji mais jëkkër ji maîtriser na ko ba sànni paaka bi. ma léegi yow maire bi maa ngi taxaw fii si garab gi léegi ma la yow maire bi léegi la mooy si sa xalaat mul ma xanaa dem police comme yaay xale bi fii la dëkk ma ko léegi wala ngay dem police di leen fi bàyyi ñoom ñaar kese demal nga woo yaay xale bi mu wàcc comprendre nga su ko defee yow bu ñu wàccee xale bi nga soog dem police maire bi ne ma aal ma musóor ma ah man aw ma musóor fii si restaurant bi maire bi génn dem toog fële mu toog wuyu téléphone wax téléphone woo ay frère am wax ba pare dem ne xale bu góor bi tudd Momar kaay nga gunge ma police après maire bi dem ñu dem fekk jëkkëru maire baa ngi julli fee paa bi ak ñeneen ñu toog fii bi biru bi gën a bëri paa bi dem na ñooñu dem ñëpp dem man ma dellu si biir restaurant xaw ma mais dem nañu comprendre parce que moom buy xeex kenn mënu koo atté te day saaga nit ñi comme dafa violent dafa vulgaire te xam nga mag tam du toog fu ñu koy toroxalee du dëgg waaw léegi ñoom ñu dem man bu muy yóbbu bagage yi mu ma romb fii ma toog gis naa ko muy dem di dem di dem par la suite ma leen naa dugg ma dugg muy roñ bagage sax maa ngi naan ah kii dee ngi roñ yàlla bu mu jël tax yëfu maire yi ndax kenn nekk fi maire bi dem na xaw ma yëg na ko wala yëg ko mais bi dem na police ki doon àtte abu léele génn fekkaan ma fii na ma ana maire bi ma la ko maire bi dem na comprendre nga léegi nag mu daane ma léegi ñii nag lan moo siy pexe ma la ko yow lii mënoo ko régler c'est pas la premier fois mun ma bu ñu rayante ma la ko ah mais lii c'est pas la première fois police rek koy régler abu léele fexe ba maîtriser ku góor ki génnee ko ñu bàyyi fi jigéen ki xam naa ak meram ak yooyu nag la am lu mu war def def ko si xel mi tout ça parce que xale bu góor bi tax la bëggoon songa xale bu góor bi ñoo ne ma diw suba ba léegi mu may sonal di ma sotti ndox di saaga man su ma moytuwul man moom dañ song man na ko fexel ba ku la la kenn ne diw bàyyil diw ndaxte kii du nit kii mbarit la kenn bëgg ko maîtriser sa bopp nga toog ni nga bokk ñii moom kër gi dinañu régler seen problème après tuuti yàggul même pas 30 minutes ba mu rombee ak fi saxaar bi jugee nit ñi tiit si bi soog a xam ne moom moo taal kër gi gën parce que moo fi mujjee kenn nekkul woon si kër gi. nekk lu doy doy na waar doy na waar. li ñu moom ban am. réew def yabaate xamadi respecté wul kenn saaga ndey bu dul si bii kër gi di si mbedd mi bu dul si biir kër gi di si mbedd mi nii la nekkee ñun comportement bu baax moom nekkul si moom xamuñu nit la xamuñu mala la kenn xamul ban façon nit la. yabaate ak réew donc moo ko dugal si lii yëpp du dara am na un jour na ànd bu mu fees ñu toog fii mu sotti si ay yére kon lii préparé woon na ko ñuy wër defe ne si kër yi ñu taq lool la te moom la lu nekk lay def fu mu joteeg jëkkër ji mi ngi toj verre mi ngi toj seetu mu ngi def ay menaces si biir kër gi di def yi kenn xamu di tiital maire bi ay dama lay jam pour que comme maire bi diabétique lu mu mun a dagg tout ça moom moom dafa réew réew na xam dina am vulgaire na li mu boole bëri na. fii si fan ok jeeg bi nga xam ne dafa sëy si si kër gi ba pare mayul gorom fu mu yekkee nakam ba taal këram bi nga xamante ne maire bi mu ko def rek léegi si une semaine lay toll ñu lépp loo xamante ne bagage woon nekk si biir heureusement que ba kenn ñàkk si ba kanam waaye yëf yaa ngi si yoon maire bi neen du bàyyi xew-xew sa TV du ñu bàyyi dañ koy topp xool fan la wànnante ji mu jékki na plainte mu nekk loo xamante ne lu doy waar lool lool lool yaakaar naa nag mag ñi buñu daan woy ne am nga ndamal jeeg dañ daan wax sëy nga si kër gi sëylu si kër gi waaye du sëy nga si kër gi taal nga kër gi bunu xataal sa njëkkee ba mu daw génn nga bunu sa goro ba muy tiit fitam ne fa dem yoonam mu nekk loo xamante ne doy waar lool lool tey kaa bi lañ leen indiloon si biir émission xew-xew télé bi ñu nuru ba nopp li ñu dajale 7TV bi yëpp euh, Papis Mbaye si moom si caméra bi waaye Palo moom mooy yor oto bi waaye Lamine Mbeng moom mooy gérer montage bi ñu leen di jaajëfal bu biir émission xew-xew si biir 7TV télé bi ñu nuru ba nopp li ñu dajale jërë jëf